internet yi dellusiwaat nañ ci bët set ak sunu deuxième invité mu ngi tudd Ibou Dieng nekk doomu Diamniadio euh, tey nag lu ko fi tax a jóg moo naam wàllum suuf du ma ci sori nag dama koy bàyyi mu nuyoo ak sunu mbokk yi ñu seetaan ba pare papa Ibou Dieng nuyu nañ la. waaw bu ñu laa wax dara ñaanal leen. Hmm. Ah, yàlla bu ñu fiy géej. Hmm. li nu fi tax a ñëw yépp ñaar rek la. Hmm. senegal ah, Sénégal ñëpp ko bokk. sama alal nag fi la ko ñëpp jël ah muy doomi Sénégal yëpp. am si yaakaar it. nu nangu na la rek réew mi nun ñëpp a bokk. waaye damay leeral sarada nag jam ñaaja bu ma moomul lewit la sa ëpp maa moom. dinañ ci ñëw léegi euh, Ibou Dieng. damay bàyyi ak sama inter sama chroniqueur yi ñu daal di wax ak yow euh, ñu wax nga wax ñu exactement aussi lan moo fii sa teewaay tey. waa sama teewaay. bii njiitu réew mi di di door a toog. yàlla dafa def ma seeti si ay benn benn kilifa. ma am document yu ma leen wan. ñu xamal na ma ah lii day leer na. waaye nañu def feet. ñu def première pierre bi ah, kilifa yi ebal ñi xam ne ñoo ŋànk suuf lu mel ni ministre de l'urbanisme ku jambay mu ñëw fekk feet bi ah, kilifa diini yi it ñëw korog Mamadou Lamine Laay bu yoof moo ubbi waxtaan wi am na ay kilifa ci tarixa bi yu ma ebaloon ay nit mais Mamadou Laay moom laa jox waxtaan wi mu waxtaane ko muy 2013 2013 boobu ba léegi nag xaw ma sama suuf lu ko téye xaw ma si yan anam la tegu ña fa it xam naa ne ñii fi ñu toog sama alal la mm-hmm. waaye mënuma ko leeral ndax jamono neexul te yàlla binduma aussi may weer nit lépp lu may dox si sago laa koy doxe ndax man mi ngeen gis ma ñëw fii am na cër bu ma yàlla jox nag boo demoon sama kër téeméeri nit a nga fa di ma xaar wala téeméer ak lu toog c'est li ma yàlla may ñaankat laa damay ñaanalaate waaye dama dem ba xam ne affaire bi amatuma lu xamatuma lu muy nëru 2012 mën naa wax ne 2007 ba 2024 maa ngi dox sama alal di jël sama alal di si def gisuma dara lu ma naan ni na lii danaa ko jot papa euh, dagguma la mais su ma comprender bien euh, danga am suuf boo xam ne tey état def ci teg loxo Euh, saisir ko def ci ay infrastructure tey boo ñu doon expliquer suuf bi fan la nekk ci Sénégal fan la nekk ci Dakar. waaye sa suuf bi. Hmm. mu ngi diggante Jamñaajo hmm. ba diini maa liggéey ba fili fili. Jamñaajo waaw ndax suuf si li nu si jot a gis li ma si gisagul. Hmm. gisagul naa du si boo xam ne 1000 hectares la. 15 ar 51 santiar. gis naa ko si andi. mille hectares tey lan la ci état tabaxagul ak yan infrastructure la eh, tabax stade uh-huh. mm-hmm. yëpp mu ngi sama biir suuf. lépp yaa ko moom. lépp maa ko moom. Uh, nan nga ko moomee ci ban anam. waaw anam bi ma ko moomee dama fekk sama maam bi jur sama yaay moom ko. Mm-hmm. waaw mu moom ko ci kayit yu leer ndañ. Mm-hmm. kayit naar di laam-laamee ndax maa moom alal ndax kii la ñu dénkoon suuf si kii mooy procuration bi mu demoon si maître Senghor xanaa maître Senghor du ñu ko dénk lu dul tiitar yow yaa ko moom ñu jël ko ci yow tabax fay infrastructure te joxuñu la euh, dédommagé wuñu la defuñu joxuñu ma dara ba fi ma nee dama luyee kër gi ma dëkk dama ko luyee titre foncier la yow ay titre foncier nga am jam ñaajo ah. <laughs> état bi ñuy récupérer suuf si ñëw nañ toog waxtaan ak yow wala nan la demee dañuy xëy xëy rek ñëw. non non waxal rek mën nga wax rek. waaw état. Mhm. wax nañu ma man. Mhm. ndax état moo ne ma demal defi fa feet. demal defi fa. feet feer. feet demal def fa benn feet. lu tax feet. Mhm. ñu xamal na ne fii yaaka moom man ma teg première pelle muy 2013. 2013 voilà teg première pelle bi. kii mooy photo bi première pierre baa ngi xujja mbay moo ñëw. première pierre. waaw moo nekk nii kii 2013 la woon. léegi yow bi loolu jàllee première pierre ak yooyu danga xëy rek gis état dem tabax fa. tabax fa waaw dama xëy rek lii dañu ko def rek après tabax état tabax. kon yow lan nga njëkk def ban ban ban nga njëkk a. def nga benn acte ndax dama am kilifa yàlla dafa def bi ma lii amee. Mhm. dama seeti samay kilifa. Mhm. samay kilifa yi xam ne yàlla dafa def ah ñu boole ñoom si tarixa bi ñu nekk samay sëriñ samay sëriñ bu ñu ma teree damay bàyyi sama sëriñ a ma jëkk waan même ñëw bu tey nii sax dañu ma ko aaye woon na ma bul dem presse bul dem rajo waaye ki nga ne day dem presse doo dem rajo ba depuis 2012 ba léegi te gisul dara lu soppaku il faut mu ñëw wax bu ko defee kilifa yi am na tey ñoo ŋànk réew mi mën a yëg ne ah nun day lii nu nekk ndeketa am na boroom loolu moo ma fi indi mais kan est-ce que problème bi faute bi fautu état la état bi fi nekkoon euh, bu fekkente ne dañu jël yow sa alal te réclamer woo ko demoo ci ñoom wala taw ko ci télé yi wax ko fenn ñu. est-ce que problème ñoom la man mën naa teg na sax du fautu état ndax hmm. état tënk na si man kayit hmm. na ma doo ñàkk. Hmm. jox nañu la barab nàngam waaye nag barab bi dafa yeex barab bi ñu la joxoon ba léegi jotagoo ci. jotuma si mais ñoom dig nañ la beneen suuf bañ jëlee sa suuf jam ñaajo. ah kay fan lañ la ko tënk nañu kayit ba jox ma. Ah, na ma dig nañu la place sangam. Hmm. mais place sangam boobu dafa yeex. ba léegi jotagoo ci. jotuma si loolu depuis 2016 la woon. mais est-ce que def nga démarche pour jot ci place boobu. waa xam nga démarche sa mënul paase. Mhm. lii nga wan a kayit ñi ngànk réew mi na la lii maa moom. Mhm. te man yàlla dama dimbali aussi. Hmm. fépp fu gis état bu ma demee jëkk gisee état dana ma demal nga natt seet juin mètre agré mu nattal la ma dem Alpha mhm. ma fay ko cinq cent mille mu natt mille neuf cent quarante sept hectares ñu bàyyi mhm. doy ma ma demaat si jiba fay ko quatre millions mu natt plan mhm. beneen plan bu bokk la lii lii ci war a jox waaw lii rëdd boobu ngay gis route à péage bi la yow est-ce que yaakaaroon ne kon combat bi nga xam ne moom nga war a mëne actuellement mooy suuf si nga xam ne état daf la ko war a jox muy suuf su bees yi la war a jox loolu moo war a nekk combat bi mais du suuf si nga xam ne moom nga amoon jam ñaajo te état teg ci loxo. waaw xam nga jam ñaaje. intéressé mhm. man li ma intéressé. Mhm. état na ma lii. voilà jël nañu sa alal. Mhm. lii dañu la koy remboursé. xam nga ñaari plan yi booy seet bokkul. bokkul waaw. plan bi bii. plan bi Rousseau ma ngi 4 millions laa fay. Mhm. Alpha Mané. lii mooy plan remboursement di plan remboursement bi. lii jam ñaaja la Paul jam ñaaja mhm. jam ñaaja la. kii mooy jam ñaaja. occupation baa ngi nii. Mhm. plan bii. bi lii mooy gorabal bi. kii amul équipation dañoo andi gorabal lii rek lañu ci génne. mais route à bi jël na fii. mais kii gisuma. kii gisuma. waaw lii. ba ñu ñëwee ñu ne ma lii lii doy lii doy na ma. waaye dama dem utiwaat beneen cent mètres. mu ne ma kon nag ma fay 4 millions. ma yëkkati 4 millions fay ka mu génn plan bi équipation yi gis nga titre bi 2314 bële. Mhm. mooy fili fili. TF 237. 2314 R 2314 mooy fili fili R. Mhm. sama suuf la mu ngi sama biir mu ngi sama biir suuf. TF 650 TF 65 04 R bi nag kooku biir suuf si. yëpp yaa leen moom suuf si la. te si ba pare tey eh, nekk borom kër nekk njaboot yor njaboot ba pare di loué ngay xool na yow sa suuf ñu ngi ci def eh, terrain beeg te xaw ma stade beeg terre beeg yooyu yëpp yow naka ngay dundee loolu. waaw xam nga li ñu koy dundee eh, nun dañu nu yor si diine. Mm-hmm. yor diine bi mooy tawxiit ak xam ni ngay war a doxe si àddina. Mm-hmm. ndax lii li muy bari yëpp teguma ko fii nag. toujours gëm yàlla lañu ñu euh, nu yare ak teey ak dal xam na lii ala kuli aadi nit li mu moom te lew la day metti rek lu waay bari bari doole da nga koy jot ndax sa alal la ndax kii bi ma jotee kayit am na kayit goo xam ne maa ngi ko jël 2014 2013 la ñu def fee 2014 ma door a xam na nag sama alal lii la maa ko moom ma door a xam ne nag lii war naa si mën a dox ndax gis naa la firnde boo xam ne alal ji maa ko moom waaye yàlla dafa def aussi mënuma si doon ñime cent pour cent ndax booba menacement bi dama koy gis ndax man yàlla dafa def ah am na cër bu ma yàlla jox tey jii ni ma tooge nii am na ñoo xam ne ba ñëwee mën nañu waxaat dinañu wax ne ah te de ku jafañ génn génn na ku jafañ a déplacé wu na tey ndege alalam ji. Hmm. ndax yàlla def na dëkk bi Sénégal am na fu ñu ma teg. Hmm. ndax maa ngi dimbali ay doomu aadama. Hmm. dinaa faj tawat. dinaa faj soxla. loolu cër la bu ma yàlla defal. kon na génne su yu mel nii du ma jogo jogo rek def ko. mais i Ibou Papa Ibou Dieng nga baal ma tuuti euh, nguur bu amee sañ-sañ rek ñëw tabax. ça veut dire est-ce que nguur moomu ko woon avant ci maamaati maam yi wala yow da nga ko doon ci sa yaay wala ci sa maam. parce que nguur amul fit rek ñëw. li xam nga nguur mën na nguur mën na tabax sa terrain. Uh-huh. si ñaari fànn. mën na fekk sa biir titre foncier. titre foncier bi makkaay ati at mu ñëw tabax na titre foncier nangam nangam nangam waaye bu boobaa loolu day daaxu kayit gii jëkk a juddu moom mag kayit gu mujj. ngóor lu mu bari bari doole kii gëkk a jiitu avant indépendance nag mënatul teg beneen euh, sañ-sañ si sa alal. bi ko jiitu mooy bi nga doon. si sa man bi ma jiitu tey jii moo doon na. bi ma jiitu xoolal taxawal ma wan la. ndoon la ci kan si sa waajur. xoolal kii lan la le 26 juillet 1932 TF 29 38 R. Jiwaane Mbeng 1906 à Bargny. kon kii moo mag nguuru Sénégal. nguuru Sénégal. kon problème bi mënatul nekk. Eh, ñu am beneen euh, nguur bu bees. parce que am na ñu fi jot jaar. peut-être ah. ay démarches yi nga waroon def. waaw nguur bu bees bi nguur bu bees bi tey lan nga fas yéene def wala est-ce que yaa ngi leen di rencontrer. waa nguur bu bees bi du ma si def daara. loolu. Hmm. fexey ñu ma hmm. message bi bu demee ndax ñaari cër yàlla da ko def si doomu aadama. dafa am débat ak média débat mooy ni ñu tooge média mooy li ñuy weer si biti kooku Abdourahmane Lahdari radiyallahu anhu loolu la taalif man ñëwuma média débat laa dugg maa ngi si biir néeg média mooy mbedd ñu de la enquête kooku mooy média waaye man seetuma état li mu tabax concerné wu waaw sama alal li ma digoon na ma nàngam maa koy maa lay jox moom laay jox ndax kii booy seet titre foncier bii. xool voilà. 29 38 R titre foncier. waaw réquisition Joanne Mbeng mhm. R. Mhm. kon kii sa mais est-ce que nga euh, fexe. dem jàkkaarloo mooy ñëpp di ko gis léegi xam nga li ñuy mën a def. waa kii sa ba kii bu jërul jël. may ma rek. Mhm. kii bul jël. may ma kii bul jël dégg nga. ko may ma léegi li nekk problème bi ñaar la xanaa xamul na ne àddina dafa am ñaari cër yu doomu aadama am bi si topp mooy àddina lépp teey la ak bañ a tooñ ak bañ a yàkkamti ñetti cër yi naka doomu aadama di bàyyi xalaat xam nga xam booy tool suuf si. dika ko moom ëpp na mille personnes ay hectare kay ñi ko moom war na mën a bari ay mille personnes ñoo ko moom mhm. waaye man am naa sañ-sañ bu toll ni mhm. duma ànd ak doom duma ànd ak jarbaat duma ànd ak kenn ndax yi boo koy def bu mu xumba mhm. àndal rek ndax xare yi xale yi xëñ na nañuy gisa yow ax ah, na ngay gisa du benn mën naa ànd ak doom mu jóge fi déborder affaire bi yokk ko jox ko boo xam ne warul tempérament bi voilà mën nag bu ma ñëwee nii si daal toogax yéen dinaa xam li may wax si sutura ak teggin état bu tabaxoon suuf si yëpp mhm. intéressé mu man di may intéressé ñu delloo ma sama alal fu ak fu ñu ma ko mën a delloo ah li ma diggoo woon ak ñoom ñu def ko ñu tënk ko si kayit ñu def ko bu ko defee jàmm am coow bañ a am ndax yàlla dafa def doomu aadama ñett la muus gu ëpp dama yaakaar ne rek loolu la ñu dugalee ah. te muus gu ëpp nag day yàq Mhm. mais li nga bëgg tey papa est-ce que toog waxtaan du moom moo koy sottal tax toog waxtaan. waa ñi fi toog ciy dox ñi fi toog ñi toog. bu ma waxtaanee ñoom it nañu déggoo ndax ki fi toog am na lu mu doon si man. ndax yaa ngi ciy dox pour toog ak moom. waaw ah, inaa dox toog toog ak man ndax hmm. bés euh, ndax tamit fee télé la. Hmm. du ma wax li nu séex waaye hmm. benn. a ah, bu nu toogee na xam ni nu bokk. ndax man sama maam séeréer la. waaw séréer la si ñaari fànn yaayam ji jur séréer la sama maam bi jur sama papa séréer la te am na lu ñu seq ak ñoom sik bokk waaye yooyu lii indiwul loolu du bokk kii droit la mbokk mënu fi tegu ah waaw waaye état man sisiruma état këyit moo sisir état na lii sama alal la maa ko moom waaw waaw la te preuve bi foofu rek ndax man bu may ñëw document yi am na document yoo xam ne sax euh, yàlla def na duñu ko génne gis nga. léegi Papa Ibrahima. waaw may ma tuuti soxna su ma ñëw. xoolal baa ñuy xaw a xoj. waaw gis nga 1000 hectares bii. Mm-hmm. mooy suuf mooy plan original bi du bii. Ah. suuf si boo ko déparé day nekk 1947 hectares. ma xool hectares yi. waaw mais nag bii. si 38 mm-hmm. bi 29 bi la war a nekk. 29 waaw 1000 hectares bi si boo doon expliqué bii nii. waaw ah, bii 1000 e quelques hectares la xool ko mu ngi foofu ñu def. mu ngi nii waa nañ ko bii mooy bi fi tubaab yi bàyyi woon. Mhm. moo nekk nii bii nag si laa sukkandiku sax ma man ñuy intéressé moom. def naa sama alal mais li ma intéressé yëpp mooy bii. parce que bii mooy source bi. waaw bii mooy bi moo moo moo. ànd ak waaw moo ànd ak suuf si jëkk. Mhm. waaw léegi bu ko defee soxna si. Mhm. Euh, li ma andi fii. Mhm. du weer état. Hmm. ndax Sénégal ñoo déposé sama alal. Hmm. Sénégal yëpp yaakaar que muy jam ñaaji mhm. ñu def état def fa alal kon tiitaru foofu. Mhm. sa na mu waroon a doxalee dafa des. ndax boroom gisu si boppam ki ko moom tuddew ñu ko ko ñi ko moom tuddew ñu ñu ko te ay kilifa lañu ndax kii moom alal ji kilifa la gu mag. gu mag si senegal ku am taarif si juddu am taarif si la yàlla may bi mu génn Alaaji Mansoor moo ko jullee. est-ce que mën nañ xam kilifa goog kan la woon. sama maam. mi jur sama yaay Juwaana Mbengue moo nekk nii. Juwaana Mbengue waaw. Mm-hmm. moo jur sama yaay. pour tënk ko comme Maymuna nee na waxtu wi dañoo dab daanaka wax na dëgg waxtu wi dab nañu pour tënk ko lan moo nekkoon maanaam sa kàddu gu mujj ak gis nañ yéen zone boobu. lu ci waaw sama kàddu gu mujj jam ñaajo jas ba côté yëpp dañuy am problème foofu mooy weeru ma kenn. Mhm. tuumaalu kenn sama alal yaa sisir yaa jël. Mhm. waaye dama bëgg état bi fi ne. Mhm. gindaku ma si sama alal. ñu gaaw lu mu gën a gaawee. toog ak yow lii xamante ne moo war a mën a ne ñu toog man. bu ñu toogee man ñaari solution moo am man fëkkuma jam ñaaja non ndax dafa am benn article boo xam ne Umaam Ubaytu daf ko bind. état mooy soxla kër gi soxla sa rajo bi na la bàyyil nga déplacé. da nga koy teg nag si ñaar na doole la du doole réew mi ñoo soxla na la fii programme lañ ni ñu si diggéey nangam muy sa njariñ yow mii moomoon te moomatuloo état moom sa njariñ la kon kooku programme am du lay sisiir da ngay maase na rek jël nañu nañu seet la neen ñu la demaase xol mën a sedd loolu rek la. léegi ëllëg bu leen état fayoon. Hmm. parce que li nga fi tudd nii yëpp ay hectares yu bari la. te da ngeen ko bokk du yow kese am na ñeneen ñu nekk sa ginnaaw léegi yéen loolu euh, yan projet ngeen ciy def ab dëkk ngeen ko bëgg a def wala da ngeen séddoo ku nekk dagg jël ko 1000 hectares kenn mënu ko dëkk. 1000 hectares kay dafa am luy dem si poos. Mhm. am loo xamante ne da ngay say ñi la yaakaar. Mhm. nga dagg ka am loo si may doom aadama yi ñu jëriñu ndax man bi may sàngatuwaal. 1968 sa maam dana ma. jàngal sa jàng ëllëg nga mën a dimbali doomu aadama maa ngi siy dimbali doomu aadama waaye bu dee alal bàyyil naa leen bàyyil nañu leen ko alal ji du jeex mu jël alal jooju dénk ko sama pap am na téere boo xam ne fa laa ko jànge si suuf si laa ko jànge teel naa xam ne fii sama sama moomee la maam la waaye nag état kenn mënul xëcc ko moom waa kii fait 2013 à partir 2014 nga gis ay ay immeuble di fa dem ay borom alal di fa tabax si si sa alal téer ko seen bopp yow mii moom di luyee loolu doy na waar comme ni ma la ko waxee rek temps bi moo ñu tënk macha allah ñu bàyyi la rek nga tàggatoo waxal. waaw li ñuy tàggatoo. Mhm. Euh, ku baa ñëw na seen rajo nag. yàlla mën na fulal seen programme te dana ful sax. ndax du fépp laay toog xëy na nag mi oyof na waaye barke bi yàlla def na ko fi ak yëg bi bu ko defee ah, ñaanal naa rajo bi sama toogaay amiin amiin te incha allahu rabbi dana gën a baax bu nu yàlla defee ba lii baax la ma moom na ngeen si amab rajo. incha allah amiin bu soobee yàlla. bu soobee yàlla. ñu ñaanal rajo bi. Mhm. yàlla na si yàlla def tawxiir. allahumma amiin barkeel lépp. kontaan si yéen. Mhm. si accueillir bi. Mhm. ak yëg bi. ak kilifteef bi. kon yàlla na yàlla fay leen. jërëjëf fulal seen lépp mu ànd ak barke. ak xiit ak jàmm. yàlla ma koy séddaale bu koy sédd yàlla na nekk première ak deuxième ak troisième si barke yonante bi. jëf ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal Papa di lay wax uh, yow it uh, amoon nañ mbégte ak kontaante dalal la fii si sunu plateau di la wax jërëjëf Ibrahima ma bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokk internet yi ah, merci di eh, remercier suñu papa ji ñu bokkaloon plateau bi euh, di ko ñaanal aussi li nga xam ne moom mooy ay tànkam fii yàlla saafara ko teg ci loxo ba mën a jotaat ci alalam jooju mm-hmm. di ñuy wax mbokk internet yi jërëjëf ci topp gi ñuy topp aussi di leen jaajëfal di leen wax allah Cheikh aussi nañ la Ibrahima Cheikh Diagne. jërëjëf jërëjëf tàggatoo di defal leen benn ñaan. yow mi ñu bokkaloon plateau bi yow may Maimouna di remercier Ibrahima comme toujours di leen wax ne ça fait toujours un plaisir rek may bokk ak yéen émission bi. Hmm. di remercier suñu papa Ibou Dieng di ko wax ne. terrain bi nga xam ne daf siy topp muy moomeelam yàlla na yàlla tegaat léppam ci loxoom ba ni mu ko bëggee mu amee ko noonu di remercier suñu invité bi nga xam ne mm. benn message ñi leen di wooyee collectif des ressortissants du lycée de Ndindi dañu am benn panel boo xam ne dañ ko bëgg a def pour rétablir benn école ñoo ngi lancer benn message di appeler ñi nga xam ne ay autorité lañ yëpp yu nekkee dëkk ba muy monsieur le maire ay ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp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 ولا وسبرت بالناس مالك الناس إله الناس من سر الوسواس الناس الذي واسوس الناس من الجنة والناس يوم لا تملك سيرا نفرا سيرا فأمنا سيرا لا نفسك فيأتي به على رسول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب رب العالمين آمين